salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ki ngeen di seen noonu boroom kaala gu xonq gi mooy Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu bis bi nag mu nekk bis bu tiis ci jullit ñëpp ndax mooy bis bi nga xamee ni ci la Abu Bakrin Sadiq radiyallahu anhu génn àddina saxaaba yi dem jébbal ko boromam ba noppi ñëw nag daje nag ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp gis nga Omar a ngi noonu toog ak tristesse toog ak jaaxle comme ni nga xamee ni noonu la ko jullit yëpp amee ndax Abu Bakrin Sadiq bi muy génne àddina dafa bàyyi dénkaane mu ne yéen jullit ñi xam naa ni maa ngi ci sama fan yi mujj ci kaw suuf dénk naa leen uutal naa kii doo Omar ibnu Xataab radiyallahu anhu mu nekk sama xalifa déglu leen ay waxam te topp ko bu fekkee nag jubal na tegu ci yoon wi màndu loolu nag moom mooy njortul rafet li ma am ba teg ko sama place su fekkee nag mànduwul jël weneen yoon budul bi nga xamee ne moom la yonant bi sallallahu alayhi wa sallam rëddoon su boobaa day lu waay def rekk boppam man ëllëg li xew xaw ma ko njort mu rafet rek la am mu daldi jàng nag laaye alquraan nga wa sa yaalamu allazina zalamu ayya munqalibin yanqalibuun mbokki Omar Ngok di diisoo ak Ousmane ibnu Affan bis bi nag mu ngi tolloog ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru maamu koor nga xamee ne mu ngi tolloog atum fukk ak ñett ca gàddaay yonent ba sallallahu alayhi wa mu tolloog le 23 août 634 ci juddub yonent yàlla mbokk yi Omar a ngoog ma ngay jóg ma ngay dox daanaka xaw tuut mu daanu ma ngay yéeg ci minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na jàkkaarloo ak jullit yi Omar a ngay xool ca suuf ma ngay xool ca suuf xool na fi mu taxaw mu ne waaw man lan moo ma dal fi ma taxaw nii fii la Abu Bakarin daa taxaw te Abu Bakarin moo ma gën fuuf ma ngay wàcc wàcc na nag ba ca suuf mu dal di taxaw Omar a ngoog mbokk yi mënatul taxaw toog na ma nga sëgg rek ba tey alin ibn abi taalib ma ngoog osmaan ibnu affan puus na ñëw jege alin ña ngay xool omar omar si gina sëggaat mënatul taxaw waaye mi ngi forcé jóg na taxaw ca minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa nee na maa ngi sant yàlla comme ni yàlla tàggee boppam ci alquraanul karim maa ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan yàlla yàlla na yërëm abu bakrin sadiq saxaaba yëpp a ngi wax loolu mu ne yonent bi jottali na li ko suñ borom subhaanahu wa taala dénkoon mu ne yonent bi laayee na biir bàyyiwul kenn nag mu am lu muy wax ci ginnaawam bàyyiwul benn coono ci ginnaawam mu ne amul benn bis boo xamee ne ñun ñëpp ñu ngi góorgóorlu di def yiw lu dul gis nañ ne yonent bi moo nekk ca kanam mu ne nan la ñuy tasante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye nag yàlla lu ko neex jël ndax lépp moom moo ko daal di moom Omar nee na nit ñi mu ne man dey nekkuma lu dul benn góor boo xamee ne ci seen biir laa bu dul woon nag li ma abu Aboubacrine Sadiq dénk li di xilaafa gi xalaatuma yor ko ci sama dund ndax lu diis la Omar a ngay xool ca kaw mu naan yow yàlla man de dama tar waaye seddal ma yow yàlla man ku néew doole laa sa kàttan rekk laa ay yaakaar ndaw lu daw yaram mu ne yéen jullit yi yàlla daf leen a nattu jox ma leen yàlla nattuma jox leen ku mel ni man mu ne ma des nekk fi ginnaaw sama ñaari àndandoo yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa di abu bakrin mu ne waaye seeni jëw yegsi na ci man ne ngeen de man ku tàng la te ñu bari ñu ngi ragal naan Omar Omar mu ne nit ñi ñu ngi wax Omar day nekkoon na di tar ci ñun te boobu yonent bi mu ngi ci suñu kanam mu ne naka noonu doom na tar ci ñun di ñu mbugal te boobu Abu Bakrin moo nekkoon euh, xalifa kon tey nan la mbir yi di mel su fekkee ne moom mooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa Omar mu ne ñi wax loolu wax nañ dëgg waaye dama fi nekkoon ak yonent bi nekk ab jaamam nekk ku koy liggéeyal mu ne yonent bi nag kenn mënu koo dab ci nooyal ak ci yërmande comme ni ko suñ borom waxee ne yonent bi ku bari yërmande la waaye ku gentil la mu ne ma nekkoon nag euh, ci yonent bi nekk ab jaasi boo xamee dama ko bocci waxtu jaasi waree taxaw ma taxaw lu dul yonent bi mu naan ma dalal mu ne Abu Bakrin yi ñëpp xam nañ gentillesse am xam nañ ñi baaxee woon ak teraangam moom it ma jël sama kàttan gi jaxase ko ak nooyam gi di ko gunge bu bocc jaasi jotee ma bocc sama jaasi ba keroog nag mu naan ma daytalal yoo Omar mu ne xam leen ne tar gi ma tayoon taroon noonu ci yéen mu ne jeex na mu ne waaye nag képp kuy tooñ tey jéggi dayoo kooku nag sama tar dina nekk ci moom mu ne waaye kuy andi jàmm topp diineem am benn jubluwaay yi muy sharia mu ne kooku de dina xam ne dinaa nooy ci moom duma nangu nag kenn di tooñ kenn wala kenn nag di offenser kenn lu dul nag kooku def loolu danaa ko tëral ci suuf jël lexam bi teg ko ci suuf ba dégg daldi feeñ mu ne waaye man nag Omar jël naa sama lex bi teg ko ci suuf ci képp koo xamee ne bëgg na jàmm ci képp koo xamee ne ñëw na nag pour andi eh, teraanga ak jàmm jullit yaa ngi bëgg nag mu ne yéen mbokk yi déglu leen ma wax leen jël leen li ma leen di wax mu ne am ngeen ci man mu ne amul lenn loo xamee ne ci seeni droit dinaa ko daal di yàq képp koo xamee ne am na droit boo xam ne suñ borom a ko jox dina ko jël mu ne dinaa fexe seen dund ñoŋ bu soobee suñ borom subhaanahu wa taala dinaa fexe ba xiif ma dindi ko fi duma jël kenn nag di ko yóbbu nag ci musiba mu ne képp koo xamante ne yóbbu naa ko ci mission islam man maa koy wuutu ci këram ci dundam ak yépp nag ba keroog muy ñëw. mu ne wàcce naa sama bopp ci palaasu ab jirim budget bi nga xamee ne mooy budget dëkk bi waxtu woo xamee ne am naa ci soxla julli di am ci soxla dinañ ci jël waaye duma ci maye duma ci saraxe te duma ci sàcc ndax moom ma ko mu ne ragal leen yàlla yéen jaamu yàlla yi mu ne maa ngi leen di tàllal loxo ngeen may dimbali di ma teg ci yoon bi dimbali leen ma ci sama bopp ci digle lu baax ak tere lu bon tayit nag képp ku ma conseiller dinaa topp sa conseil ndax nag gënuma fi kenn dañoo ànd rek te yàlla rek tax déglu leen ma yéen jaamu yàlla yi ngeen daal di xam ndeysaan mbokk yi ndaw discours bu triste yelante suñu président de la république yi yelante suñu njiit yi ñu xam li nga xamee ne moom la Omar ibnu Xattaab wax lii de mooy budget bi duma ci sàcc duma ci def lu ma warul la def lu dul loo xamee ne rekk dëkk bi moom moo ko soxla allahu akbar allahu akbar dama fee nekk nekk xalifa yonente bi waaye nekkul dama leen a gën duma fal sama doom duma fal samay am di jàmm waaye lom qu'il à la place kilfo faut kii mooy Omar ibnu Xattaab li mooy première xutbaam bi nga xam ne moom la def ginnaaw bi Abu Bakrin Sadiq génne àddina radiyallahu anhum kon nag ñun ñëpp nañ bàyyi xel dénkaane Abu Bakrin Sadiq bi muy dama yaakaar ne màndu na ma jiital ko waxtu wu defee nag naka su dul noonu rafet njort la amoon waaye nag lépp lu waay def rekk boppam salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu